Papis. maa ngi lay ziare. maa ngi si jàmm bu baax a baax. ba am nga jàmm ak tawfeex. waaye sant rek sant rek. ah tey de sa waa ji dana seet si. ah waaw lii de baax na ci moom xëy yéen moom. daanaka hmm. nah, fekk yéen a ngi ànd ak seen sago rek du ngeen fi ñëw. waaye toog ànd ak sa sago daal dox ndànk ñëw seet si moom loolu sëñ bilim da koy bëgg. ah sëñ bilim coow la fi nekk rek waaye ku wéeru sa digg laal xam ne dëgg dëgg bilim kang la. Hmm. moo tax koñ bi heure bu ñu jaaxlee. ci yow rek la ñuy ñëw. moo tax sëñ Bilim dama amoon benn kaabu bu urgent te cas boobu noonu yow rek yaa am ci mën a dimbali. Hmm. dafa am sama benn xarit daal boo xam ne dafa am benn jigéen bu bëggante ñu bëggante lool seen diggante tamit yàgg lool neex lool. Hmm. léegi benn waay ñëw bëgg a suuf. léegi nag moom loolu bokku jaaxal te xam na ni bu moytuwulee dana ñàkk ndaw si moo tax mu ñëw wax ma ko ah bi ma ko waxee man sama xel tëjul kenn ku dul yow moo tax ma ne ko ah am naa ci xalaat léegi man dinaa essayer ma dem ci sëñ bi sama maara bi xam naa ne su ma ko waxee baat ak tontu lay doon leen dal. lañ bëggoon eh, nga defal ñu loo xam ne daal moom xale bu jigéen bi na koy topp rek guddee bëccëg loolu kese lañ bëgg. sama xarit nga sama wóllare nga ndax kóllare gi mu ngi sosoo ci sa yaay waaye wax dëgg su ma juumut Papis loolu duma ko mën daan naa ko def nag mën naa ko it lool waaye daal dafa am yoo xam ne ay caaxaan la rekk xale bi bëgg na ko. bëggu ko da dem seet keneen rek. sëñ bi bul wax loolu yow yaa ma gën a xam ne ku fallu fàtte doo lay fal moytul sa mucc mën nga jéggi ci xal te ginnaaw nag koñ bi yépp seen yaakaar gi yépp ci yow lañ ko yaakaaroo dimbali ma rek te yàlla tax. waaw ginnaaw caaxaanu leen su fekkee it da ngeen ko bëgg a takk. ndax man dama defut loo xam ne nii da ngeen di wër di ko caaxaane xale bi jigéen bi fu ngeen ko woo mu leen ngeen di ko foowe loolu laa dul man waaye bu fekkee da ngeen koy takk mën naa ko def. loolu moom mën naa la ko assuré fowuñu te buñ ko amee moom farata rek incha allah. waaw dinaa leen dimbali ngir li nga wax ndax. comme ni ngeen koy dundee mbëggeel la dafa metti dafa metti trop trop trop trop teel li sa xarit bi nu tudd moom Ibrahima ku jigéen ki Khadija boo demee neel Ibrahima na jël bitel bii na ci raxasu gàllaxndiku ci te bu mu ko wan na ci raayu ba kanamam yépp daj ak loxo yi buy dem kër ñoom Xadija na tàllal loxo bi sotti ci saafara si tuuti tudd turu Xadija ne ko lu ma la wax neel waaw lu ma la wax neel waaw bu ko defee ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon laa la wax mhm. li lay wax bul ko fàtte ba muy ñetti yoon ba muy ñetti yoon mhm. mu tifali ko ci loxoom ngëpp ko bu mu jox kenn loxo yow sax bu mu la jox loxo ku dul xadijaax bu mu ko jox loxo su demee jox ko loxo lu mu ko waxti mu ne waaw ah. maa la wax léegi moom bis bu mu ko def baax na dimanche bisu dimanche ca ngoon baax na dimanche ca ngoon sëñ bi fàtte wala nga la fàtte ma ko kii kii fàtt naa ko fa xelu xalaat di jeexe boo ko fàttee de wala mu juum ci gis nga ni ñuy giseen di bëggante hmm. dinañ mel ne xaj ak muus kooku dee wuute ko moo gën ndax gàcce la sëñ mbilim daal yàlla na la yàlla fay ah, xadisa de bëgg ngeen ko loolu <laughs> yéen xadisa daa nekk jigéen bu baax macha allah noonu la jërëjëf weexal gi juróom-ñaari doomi guro la nga sarax ko mag incha allah bul ko fàtte bëgg naa de jërëjëf doo ak man ah bal ñu dem rek yendool ak man ah ba wéetali ma sax ñu waxtaan baa ma dem rek ah dinaa fi ñëwaat ànd fi ak ñeneen jërëjëf incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ mbilim jërëjëf nil ma maire dama ko dégg Mara Mara wax ma loolu de yow depuis loolu waxoo ma lu tax naaraa dem. Euh, Naara dara taxul ñu sama diggante moom dafa am malentendu rek donc malentendu boobu nag moo tax xam naa mu mer dem quoi man daal dama génn ñëw fekkaatuma ko fi. loolu rek laa am ci moom. nañuy wax sax alhamdulilah en tout cas man loolu laay wax parce que nag il est temps nga xam ñi la bëgg ak ñi la bañ yow seetlu woo que ne naara ba mu ñëwee suñu vie ba tey dafa changé dara neexutu si surtout sama diggante ak yow léegi kay bi que ne dem na dañ nekk suñ suñ suñ jaamu di dund dañ doon dund avant muy ñëw nekk suñ projet de mariage moo gën de. d'accord dëgg la ko mais Kouro. man dama warona gis Nara Nara dama warona xam ci lim nek parce que euh, su fekkoon ben fan tamit son nako ci kër gi quoi euh, mais man comprendre ma man dama warona fekk Nara ci kër gi Nara waratoon a dem te te ñëwum. Mara lu tax nga bëgg di sonal sa bop mo ñëwoon mo jéki jéki dem kay bayiko ko nekké sa kër yaa ngi ko doon topato léegi mo jékki dem. moom mi dem kay heure ko sentiré dina ñëwaat peut wax na lan moo ko yóbbu doo ko bàyyi mu dem rek ngir yàlla si jàmm ak salaam la ñu diri ko cin wala wala yow naara bu ñëw lan lan ma xew lan moo xew sa digganteeg naara boobu mu jékki-jékki dem nii mu lay def effet bi. na ah, dara xoolal gis naa ne yaa ngi commencé changer moment yi moom ah, nekkuma en l'aise dara quoi euh, boo xoolee sama visage sax da nga xam ni kii. bukur ak mara bi ma xam yàlla ma dimbale rek mais kuro ñakkon nga sa lepp dofon na bu noppi wa nak alhamdulilah bima amé ku melni yow ko xamné sa saa gerso gis ka sama wet en tout cas kenn du yow quoi. xam naa mais xamna rek moma gëna metti situation bi. ci lan. <laughs> ni baye non on verra. waaw instant bi moom euh, dama lëng tuuti waaw ma ma dund tuuti <laughs> dama dama instant dama mooy loolu. sama hmm, hmm. <laughs> eh, loolu moom xam naa yàgg nga ko bëgg quoi naaraa dem. sama ñaan moo nangu. kontaan naa ci yow. <laughs> maa gën a kontaan. en tout cas euh, ki la xelal lii def na lu rafet quoi. Mm-hmm. donc dafa nit ku nekk bu nit ak ku manti doon bu nekkee ci ay situation yu difficile dafa war a am koo xam ni mooy ñëw taxaw ci wetam di ko conseil di ko sensibiliser di ko yee sinon rek mën na dof koi xanaa xam ñu bëree nga dof te te dañoo manque euh, ñu leen accompagner mais su manqué accompagnant. dafay am de trop quoi mais franchement je suis très content en tout cas sont un côté différent avec les autres filles quoi d'une part et d'autre part sur ni fois. Hmm, da ngaa mën a wax di wax rek mais man li ma defal man. Hmm. mun je la defal xaaj ba sax. Hmm. dama fay sa bor sinon la fay bor man euh, Bibo. Biba. booy nga trop. booy nag de. Ah. man daal maa xoolal maa tijji sa néeg fekk ngay xaran xaran yu rëy. ma ne ah sama waa ji sonn na tay de. loolu mais waxuma loolu de. booy démb woo naa bi waxtaan na maak moom ci lu bari. liñ dund si koñ bi affaire bi ni mu demoon yëpp expliqué naa ko mais daal li ma xamal mooy booy suba faawu ñu dem village donte dañuy dem ñëwaat. booy suba suba. suba suba. suba jàmp na de. non jàmp na mais xam naa bu baax li ma la wax. non at nga am fi ni wala ñaata weer nga am fi ni yo xamantene yow yobante dekk ba sax dang koy koccaatu nga tepp te bëgg a dem dekk ba ni bo agge da nga fay ag ak sa loxoy kese. no boy lol dëgg la tukki neex na lool waaye dellu si moo nañu dem rek waye nak nga delo nga delo wala dara da ci da ci bax de ba ngay tukki da am lo doon yob nan nan baye ba ci kanam. ñu waaj daat fay dem nga xam ne boobaa danañ mën a yóbbaale dara parce que waa dëkk ba nag boo demee dan la dan danañ la bàyyi xel dara de. d'accord xam naa bu baax li nga wax. loolu méttiwul yow pare rek pour ñu dem xam naa bu baax li ma la wax pare. d'accord léegi mën naa pare waaye nag luya luya luyaas bi ñun koy def. léegi ñun bala ñoo dem nan fay luyaas ba noppi parce que verre bi léegi mu de non locataire bi moom amul problème loolu après dinañ ko seere après man dinaa ko cotiser dinaa ko fay incha allah. Ah, boo ko fayut de moom nan jàpp na bis bu ñu demee dëkk ba ñooy ñibbi si paa bi dugal ci keneen. non garaawul loolu dinaa ko seere yow pare rek. Ah, waaw pare rek dégg nga léegi kon man ñun nan waaj daal. 7 heures kay yéene jëm village ñu dem village incha allah. ci guddi gi laay pare. waaw baax na incha allah. incha allah mais yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi nii rek booy. temps de moom mooy loolu am nga xaalis de. ñàkk xaay sama tee dem village boobu ba léegi. Ah, non xoolal tukki neex na lool waaye dellu si moo dàq. waaw ah, am nag waaye nag boo dee dellu nga delluwaale dara baax na ci de. non nañ ñaan wér rek. tukkee loxoy kese ñibbiwaat ak loxoy kese dara gënu koo nekk defee boobu. ku dund ñàkkoo dara. Lara lan moo tax nga fanaan fii si biti Naki tëdd naa ci guy gi ba sonn mais mënuma nelaw parce que xet bi ma fay nooyu attanuma ko dafa mel ni man a génn bokkutuñu xet bu ñuy nooyu loolu ma tax ma génn fii daan fanaan fii parce que mënatuma nooy xet boobu noonu. Nara lii lépp de waxoon naa la ko waxoon naa la ñu ak yow bokkatuñu dundin naara loolu rek moo tax mënoo fanaan ci biir guy gi ndax xet gi lay xeeñ. dangeen maa seetaan trop léegi ma soon sonn li may dund nii dee wute ko sax moom ma ko gënal sonn naa ba ci kanamu yàlla yéen lii lépp bu leen neexoon saafara ngeen ko bu yàgg ma dund leneen mais su tumuraanke laay dund chaque jour gisuma yaay gisuma kenn yéen laa xam yéen a ma yar mais dangeen ma seetaan dangeen ma seetaan trop. Nara. man duma la mës a seetaan benn yoon xëy na loolu nga jàpp waaye waxoon naa la ko bul fàtte ne danga nekkoon ci loxoy Mara te Mara ci jëmmam am na loo xamante ne mi ngi ci moom loolu rekk a tax waaye nag. dina waxtaan nak ki nga xamantene modi nari mu jappale la nara sa suné sama xel mi ngi ci yow ak sama xol ndax mala yar fi ci sañu foori kon nara duma la sétane ben yoon jógal Naki ko nga dimbile ma comme li nga ko daan defee sonn naa trop sonn naa ya bi ca kanam yàlla instant bi dama xamu fan laay ya, féete nara dinaa la boole ak naar yi ndax kat moo ma gën a féete ak ndaw te sawar na lool kon baax na tijji ma ko woon ci table télé de. ah fa laa ko jëlee ndax mbaa na ko. ba tijji woo ko. léegi tijji ko dem merci. la lu ci ne. lii. Mm. non li xam rek mais xam nga yow sa dom mom dafa doy waar. dëgg la ah. yow xam nga bu baax man fitu mm-hmm. comprendre te ñi intéressé wu ci man dafa bari.

sañ bilim kay mosu koo gëm te doo ko gëm mukk sax bi ma ko gisee kay xam naa ne xaw ko la koy joxaat doon sañ bilim moom xaw ma koy gëm kay waaye sañ bilim moom du ci bokk xam naa loolu waaye ginnaaw yaa ngi koy def rek baax na alhamdulilah nagam gëm nga dara dangaa sonn dangaa sonn te ku liñ naan bu naar sonne waxi olof moo lay bëgg a dal fi mu ne hmm. yaa ngi bëgg a xam ne bëri nga poro ma boor ndagam am nga loo gëm rek bay sangu baax na fàtte naa ko sax nabu de bàyyi na ndax nee moom dafa gént nga di ko tëddee wax naa ne ba sonn nee na dalul xelam ginnaaw dalul xelam nag mag moom lay daloon xelam mooy la koy moo koy may yaram wax naa ba sonn lànk na waaw ah, dàq naa ko dem na xëy nabu mu gént man ma di ko tëddee moo tax mu bàyyi waaw ndox moo xam hmm. nabu na bàyyi man nabu sax man mosuma neex mosuma neex man jamono jii man femme waar laay wër actuellement nii femme boo xam ne yaram bi day taw loo ko jox mu delloo la comprendre parce que nag attention de jigéen dañ koy tànn. te man jigéen li ci njëkk a tànn mooy der bu dëgër parce que ba der bu nooyee day gaaw maget màgget li ma lay ñaan mooy boo indiwaat indil ma femme noire sa femme noire yi dañu mën a dañu mën a togg aussi parce que boo xeesee nii pour nga togg lu baax dafay xaw a jafe te nabu dama ko doon sagal rek de mënul togg mënul fóot te un jour sax li mu wax nii moom moo ma ko doon def de un jour fii laa tëdd nabu ñëw di ma làmbatu <laughs> te pourtant yu bëri loo xam ne boo gisee nga jàppale man maa koy provoqué mais nabu man rek la naboon mais heureusement ku ko dem na alhamdulilah dinaa ma nekk si jàpp. xaw ma yoroon doom déet na la de moom doon bàyyi xel lu bari nag. c'est ça man sax koo xamoon. comprendre sa doom moo demee noonu moom jigéen naa ma jigéen ñi jigéen ñoom ñoo may lenn de laa bëgg la laa la bëgg a wax. waaw xaw ma dangaa bëgg a loqati sama lañ ci xaw ma ci teint noir boobu laay dikk yow am na ku may waxal. Hmm. waaye damaa bëgg ngir yàlla bu ñëwee papis nga may ko jàmm ndax da nga mel dang ko nga bëgg xam xalé bi ni nga ko waxé nonu la ko non la ko amé té noir la waye papis mëno ma yërem yërem ma ngir yalla ak wax jek ciowli jappal bayil kay dikkal togal suba ak ngone mayo jàmm xali yu jigéen mu fi indi nga bëgg koo xam xam nga commencé ti nga ndax suma suma né la dak na am na bu te man waxaguma sax nala amna am ko may waxal nga tollu fofu nan noir ba blanc ba rouge ba bula ba. yaay xam nga fan laay tëjee ak yow man géwal moo ma dooñ sama xaru ngénte bongo man la bongo man moo ñu ko jaay su ma bëriwul coow damay tooñ en tout cas foofu nga teg sa baaraam foofu la ko nga am nga teint noir c'est pas grave su ñëwee naa ko jàmmal jàmmal ko dinaa ko dalal tatagal ko. doo ko jàmmal waaye Papis gis nga su ma dàqaatee jànq bii soo waxee ba ma dàqaat ko da wuti jabar mbaa man dina futteeku la ma la waxoon rek nekk mbaamam kër gi seetal nag la ci neex ndax man sonn naa mënumaa dëkk ci uti jànq loo def noonu waaw baax na ñëw na rek su ma la xoolee xam li ci yow man xam nga xam naa dama laa ci biir rek ndax doom dafa neex sàkkaar yàlla na yàlla dëppal la ma rek waaw ah, mère hmm. lay commencé xaw ma ko waaw ah, garaaw jarul wax la garaaw toogal rek ginnaaw sama ak maa yàkkamti nag dimanche jot dimanche dafa war a ñëw nii nii nii ma koy seen soo boobaa dana xam ne lépp dëgg la. Papis waaw kii naa maa ngi seen bunt kër ñu ñoo ubbil ma ah yaa ngi génn waaw defalu gaaw waaw baax na defalu gaaw maa ngi xaar fii. maa ngi jégalu ci naaj bi nag mais baa xam nga ne yaa ngi mool ku la ko waxul dalay nax baa xam nga ne yaa ngi jaxase sama xel mi réeral samay xalaat jël sama xol bi ne ko dagg ci sa biir xol xam nga lu ma bëgg nga wax ma sa tur wax ma fi nga dëkk nangul ma sama mbëggeel ñu ànd def lu neex loolu rek laa bëgg xoolal nan naan mariage waaye loolu mbëggeelu forcé la man loolu rek laa bëgg yow fo jëm mo yoppal nga de mo waxuma fuunaat wa yow ana man ana yow ngay alaykum salaamaaleykum waxaguma man salam ngay da ngay fuunaat te mo nga bët de xam nga la lay xamal mo gis nga bo solo grand bu bii maire yi du sol hmm, mu sóoru boobaa kenn du wax ci yow dara waye bo melé ni nga mel ak sa gad gu baax dañ ni wax ci yow yow yaay kan sama gad gu baax gi ngay tuddu ba légui la bëgg nga bàyyi yaay mu dégg nga saf crayon pastel ni, yow ñako kessa te caga heure bii du yow loolu ngeen bëgg eh may ma sama jaam ngeen bëgg ko caga wala ma ngi soo cagawee nga dem sa biir néeg nga wane ko fa par ma wax nga may mbéj xoolal boo mbéj dama lay noq dégg nga li wax yow yaa réew eh kon eh, jël sa gimmi laaw eh xoolal boo ma mbéj yaxte def lu bon bon doo toa noqaat laa la wax ay ver <laughs> yow am nga sens yow xool ko ak gar gu baax ni ngeen def ba pare dox pare ñu leen doom ngeen di am loo leen